collecter des fonds qui ont été utilisés pour l'achat de cinq thermoflash sous l'autorité du préfet, du maire de la commune, du médecin-chef. Nous avons ciblé trois postes de santé au niveau de la commune gaawaan 5 gaawaan Diamaguène Mbacké Dimb Darou Salam Croix-Rouge et au-delà des termes flash que nous devons remettre au poste de santé Mbacké Sama Gox a également aussi euh, appuyé la Croix-Rouge en carburant à hauteur de 75 000 francs il est prévu également un même appui pour la police et pour la brigade d'hygiène à hauteur de 25 litres de carburant par corps. Euh, dans la même veine, dans la même dynamique, Mbaké Samagor va lancer d'ici une opération baptisée Romborahassou pour euh, sensibiliser les populations à prendre les devants pour faire face à cette euh, pandémie. En plus de cela, nous avons également aussi mobilisé nos tailleurs locaux qui vont d'ici peu confectionner des milliers de masques destinés à la population mbakoise. nous lançons un appel aux autorités parce que nous sommes une démographie galopante. Mbaké Touba constitue une forte agglomération. Et ici, nous avons le regret de constater que notre district sanitaire Badalel, faute de pédiatres, faute de gynécologues, nous lançons un vibrant appel aux autorités étatiques pour qu'elles nous viennent en aide il faudrait qu'il essaye de relever au moins le plateau médical de Mbacké. À défaut également aussi euh, ériger euh, le district euh, en hôpital au rang d'hôpital de, de premier niveau au moins. enquête aussi xam ne poste de santé yi nekk commune bu Mbacké yëpp cinq yëpp benn amul si thermoflash ñu jàpp ne dëgg la faute la si état faute la aussi si médecin chef bi mais itam faute la si ñun population bi ñu si loolu lañu am initiative. ne nañu contribuer suñu ak ay propres moyens au lieu ñuy xaar état walla ñuy xaar kenn ñu def ko devoir citoyen si lu ñu dajale ba am hauteur de neuf cent soixante dix mille francs si lu ñu jënd cinq thermoflash yi doon wër suñu ay poste de santé pour doter leen ko en tant que ay citoyen beneen bi aussi wax nañu ko euh, mooy que ne état bi dañuy xaar si état mu am reconnaissance si commune bu Mbacké on part de notre commune parce que boo xoolee suñu commune bi district bi boo fa demee presque post yi sax ñoo ko tane asantuma laa nag poste yi kon sur le plan sanitaire moom Mbacké est laissé en rade totalement parce que vu la situation depuis feebar bi dugg fi aussi gisuñu ne état kat génn na millions yi appuyé na ko département commune bu Mbacké wala nangam ak nangam donc bu dee am na itam gisu dégguñu ko donc ñuy xaar état bi à ce que itam si kaw lii bu ñu jàllee feebar bu ñu si génnee ak jàmm ak salaam ñu ngi koy xaar ñu relever plateau médical bi. parce que district sanitaire bu bi tey waroon na am radiologie minimum des choses waroon na am li nga xamante ne pédiatre waroon na am pour jigéen ñi pour ñu aussi ñu teg leen ci ay conditions yu baax il faut nga dem si yeneen euh, cliniques yi pour fay loolu waroon nañ ko am si suñu district sanitaire bi donc waroon nañu am ay banque de sang ainsi de suite mais loolu itam ñu ngi xaar état su ko deful itam on va faire la même chose mooy lan population bi am nañ conscience que ni tey li Touba ci kanam di def Mbàkke war nañ ko mën a taxaw plateforme boobu noonu di def ko ak Mbàkke sama gox ak population Mbàkke bool bépp mooy la ñu tàmbale agir relever plateforme bi bu ko médical bi bu ko état deful euh, médecin chef bi signalé wul pour ñu def ko ñun population bi jàpp naa ne bu ñu demee indi si ñuy matériel installé ko fa mu ñu mënul indi ay médecins yu ko def ñun dinañ fas yéene parce que Mbàkke am na ay bonne volonté am na ay doomam yoo xam ne mën nañu fay nit chaque fin du mois cent mille ainsi de ñu dem dépêcher ay médecins ñu ñëw gérer ñu loolu noonu fii suñu commune parce que jàpp nañ ne naam feebar bi si la ñuy wax mais itam suñu dëkk daal parce que yéen nañ yéene lépp loo xamante ne état defu ko autorité yi fi nekk aussi defuñu ko ñun population bi ñu jug fas yéene def lu ñu mën ak lu ñu mënul ba ba ba satisfaire li nga xamante ne mooy demande sociale bi. vraiment am ngeen ci yeneen matukaay opération la waaw opération bi ñu lancé nag si diiru trois jours lañ koy lancé muy romb raxasu. parce que gis nañ ne cas communautaire yi bëri na te itam diggante Touba ak Mbacké mënuñ tëj frontière bi kon dafay baax yenn sit yi nga xamante ne boo wàccee Touba Mbacké bi wala ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey suñu wàccee dinañ fa jaar fas yéen nañ fa teg romb raxasu mooy lan teg ay barigo teg eau de javel ak li nga xamante ne mooy savon yi teg ko foofu ku romb ay nit dinañ fa nekk ñu def ko romb raxas si site yu bëri bu ñu sante nañ aussi ñi nga xamante ne ñooy croix rouge ñoom ñi nga xamante ne tey à partir de vingt heures ba six heures du matin dañuy yor seen ay ambulance di circuler ñu doon joytu ne ñoom dañoo am jafe-jafe carburant bi mu ne toog suñu nopp ñu décaissé si li nga xamante ne dajale nañ ko muy cent quinze mille francs dajale ko def ko bon facile la ñu ko jébbal pour ñuy dimbali askan wi beneen bi aussi mooy police police dinañ ko dotee carburant ak ñi nga xamante ne ñooy service d'hygiène on est là pour la population mais on est là pour les structures yi nga xamante ne tey ñu ngi jàppale askan wi te seen loxo néew mooy lan état li mu def mu xaw a néew te itam ñu jàppale ñun war nañ si mën a teg suñu loxo ba loolu noonu gën a yong parce que ñun